ci kaw loolu bari na ci ay wet yu baree baree bari yoo xam ne tagg na ci yonante bi kenn mënta wax lépp ndax xasida goo dugg daanaka la ko tax a jëriñ mooy tagg yonante bi waaye nag danañ ci tudd ay wet bokk na ca wet yam ko tagge leeral guddig juddoom ak la ca aju ci ngëneel ak la ca suñ boroom làq niñ ko miine mu wax ne guddig guddig yonante bi mooy guddi gi nga xam ne ci la suñ boroom di fare sikk yi ci la suñ boroom di fare coona ci la suñ boroom di fare ñaawteef laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riya bi laylatu mahwi taxa bi wa tuxri fi taasumi ba tey nee na ci guddi guddi yonante bi ci la nit mën a jële ak texe ci la nit mën a jële ak tonawu ci la nit mën a jële ak mbaax ci la nit mën a soree ak mbugal mooy biha najaatu wal falah maha sururi wan najah biha rabaahu wasalah ma am difaaxin ni xami leeral tamit ay xew-xew yoo xam ne xewoon na ca kaw ci ci guddi yonante bi bokk na ca xew-xew yooyee sawara wa nga xam ne moom la majoos yi daan jaamu keroog bi yonante bi ganee àdduna sawara wa dafa fay ci sanse bokk na ci it dex ga nga xam ne carañ daan daane bi yonante bi ganee àdduna dafa ñiis amatut bokk na ci it leer gi nga xam ne moo feeñ ba ñi nekkoon Màkka di gis fale ya nekk ca Xaysar loolu Aminatu moo ko nettali ne guddi gi ma mucce yonante bi alayhi salaatu wasalaam damaa gis mu leer leer goo xam ne gis naa mboolem fale ya nekk Xaysar mooy sataxa yi na wulida de nuur naa fi mun xadd yara bi ñu fusuura xaysara man kaana fi ummil xura makkata xayril xurumi bokk na ci loolu tamit iwaanu Kisra mooy tabaxub Kisra fu mu dëkkoon balcon yi mu daan toog keroog yonante bi juddoo dafa màbb par benn ba neen mat na fukki balcon ñaar yoo xam ne màbb na ca ba tey mu wax ne guddi guddi yonante bi mooy guddi gu màgg guddi gu barkeel goo xam ne màggal ko lu war la ci képp ku amub cër ca yàlla baa mu koy sàkk ci moom mawliduhu muassamu mubarakun muhtaramu taasimuhu yanxatimu ala zawi taqaddumi wax ne ku màggal guddi juddu yonante bi xama yansi mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu xada nee na bu ëllëgee bu suñ borom di xisaab du bokk ca ñañ xisaab am na foo xam ne dafa wax ne day mel ni koo xam ne dafa teewe badar nee na ku jël ab dërëm sax joxe ko ci guddi juddu yonante bi da nga mel ni ku fekkee xarib xunayn ak xarib badar ku teewe guddi juddu yonante bi bégte ba tey nee na da nga am mbégte mu sax àdduna ak àllaaxira nee na ku fekk kuy jàng ci guddi guddi yonante bi moo xam xasida la wala la muy jàng du jëm ci màggal yonante bi rek nga jël saw ñam jox ko ko kooku nee na am nga denc boo xam ne ñi gën a kawe yitte ci àdduna moom lañ doon wër ku barkeelu ci guddi yonante bi ci jàng ca dara ci alxuraan wala ci leneen kooku nee na ak dolli ku la gu amul yemukaay ba tey nee na dundal dundal guddi guddi yonante bi day aar njaboot di aar ay kër di saafara xol ci mboolem xeeti bàkkaar yi loolu bokk na ci lim wax ci wàllu guddi guddi yonante bi ak ngëneel yi mu am bokk na ci melo yi nga xam ne daana ko ci tàgg it meloy bindam meloy bindam ak meloy jikkoom ci njëkk li mu wax kon ci meloy bindam mu wax ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam dafa nekkoon ku digg doomu ab taxawaay nekkutoon ku gudd ba ëpp waaye nekkutoon ku gàtt ba ëpp du woon ku ñuul kukk du woon ko xees pecc mooy xadd kaana saa tawassuti fil xaddi jaali sututi walam yakun bi mufrati walam yakun bi aadami walam yakun mutahama walam yakun mukalsama bal saaxa kulla man sama min muntamin li aadami nee nekkutoon koo xam ne bindam dafa rëy ba mu ëpp dafa nekkoon ku digg doomu waaye nekkutoon tim koo xam ne ay lexam dafa rëy lool te it nee na képp ku yonente bi masaan na bokkal di dox moom moo lay sut njooli wutoon loolu waaye ci tiimaanu suñ borom gim def ak bëgg kenn bañ koo tiim tax na lu waaye gudd gudd boo taxawee yonente bi moo lay sut te boo ko doon xool moom doon du nit ku njoole moom nit ñee tolloo waaye teewul lu waaye njool njoole bu ngeen taxawee moo lay sut ndax yàlla bëggut ko tiim mooy kaana yatuulu kulla man maasaahu fi kulli saman wa kaana waasixal xatan yaddaxaku bi tabassumi maanaam yonente bi dawut reeba xaq tay saa yu daan ree da daan muuñ rek waaye dawul ree ba xàq tey mu ne dafa amoon weexaay boo xam ne dafa xaw a jëm ci xongaay maanaam du ko weex tàll du ko xaw nga coru ay yéenam tamit nen dafa sakkoon lool ay bëtam dafa yaatu woon aw dox yéenam dafa jekk ñi ko daan melal dañ ne buy dox ka am na ma yan xattu min sababin day mel ni kuy wàcc ci am mbartal noonu ni dox yi luy tegaloo ak na muy gaawe bu ma saanaree neenam bëñ ya day leer ba ay melxat ba sax am ñu ne malxat yi ci daan génn day mel ni boo nekkoon ci aw naaj jëlub seetu teg ko leer googu nga xam ne moom lay tàmbi ci miir bi su masaana ree leer gi génn ci gémmiñam noonu la daan mel kanamam tamit nee na dafa kupp ndaloon mu nekkoon ku xaw a tuuti tuuti waaye nekkutoon tu tuuti tuutaay bu ëpp nag tey nee na bakkanam dafa yëkkatiku woon ay noppam dafa matoon ay bëñam ni mu tegaloo dafa jekkoon mu am aw sàkkale yàlla ci biir bañ yi kanamam nee na ku ko gis tàggoom njàqare ndax taar bu ko suñu borom bindi woon mu ne daal ci gàttal mooy ci gën a mat ci mbindeef yi ci bind ak ci jikko ku mel ni moom kenn mos koo gis wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu xattu lam yura walam yura fii siyami loolu nag nuróon naag ni ko Abu Hurayra melale ndax Abu Hurayra dafa wax ne yente bi moo gënoon rafet ci nit ñi ku digg doomu taxawaay la woon waaye nee na am njoolaay la gënoon a jege ci gàttañ ay mbaggam sore ay laxam ratax kaawam ñuul kukk ay bëtam rëy ay likk buñ koy waxe ay xef nee na tamit bu daan dox tànkam lépp day tege ci suuf waaye daawut doxe catu tànkam buree day melxati ba nga gis ko ci kaw miir bi nee na daal ku ko bëgg a melal danga naan lam ara xablahu wala baadahu mislahu mosuma gis ku mel ni moom te dootuma gis ku mel ni moom Hassan ibnu Saabit moom itam meral ko ne wa ajmalu minka lam tara xattu ayni wa akmalu minka lam talidi nisaab xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka xuliqta kama tashaaw mu ne sama bët mës ta gis ku rafete ni yow ku mate ni yow jigéen mës koo am daa mel ni daal ni la suñ borom binde ni nga mucce ci ay sikk ni nga mel yaa doon bind sa bopp nit ku doon bind boppam na na bind bay jekk rek noonu la mel nee na bokk na ci li ñu ko tàggee ci ay meloy jikkoom loolu meloy bindam la waaye tàgg na ko it ci meloy jikkoom mu wax ne lu waay bari xam-xam lu waay bari jëf lu waay yëkkatiku daraja yëkkatiku daraja mënoo jege yonente bi alayhi salatu wasalaam ci jikko wana kullu fi hilmin wa saayin wa rutbatin xanil mustafa fi xulqihil haitil ulwi mu wax ne ku am daraja la woon doonoon ku jege yàlla doonoon ku am wëllëre ku tabe wafiyun karimun wahidun waaduhu ata bihi li siwaana maalasul jawri bi rahwi ba tey nee na yenente bi jaamub yàlla la woon xayru abdin baatub jaamub yàlla woon boobu mu wax nag nekkul lu ndaw ndax li ñuy tuddee alabudiya mu alhubudiya mooy ku mat ak jaam dëgg-dëgg jafe na waaye yenente bi moom nee na ci yemukaay ba la nekkoon boole ko nekk ab sang boo xam ne mooy sangum ñëpp di soppab yàlla di xaritam nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidin xalilun habibun misluhu laysa yaalunu ba tey nee na làmmiñam dafa saxoo woon tudd yàlla ak xolam saxoo sant yàlla mu doonoon ku tabe ku melowoo mboolem tedd ngay jikko yi mu ne ba tey ku sell la woon ku ragal yàlla la woon ku defaru tey defare la woon ku boole dégle ak xuppe la woon naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslihun basirun liman lillahi bilhaqi yushin nabihun adibun zuhayain muassabun nasirun liman bilkufri washirki yoxlam loolu mooy inna arsalnaka bilhaqi basiran wa nasira basirun liman lillahi bilhaqi yushin la waaye nasirun liman bilkufri washirki yoxlam daa boole woon ñaar yëpp ba tey mu ne yonente bi ku laabiir le woon laabiir goo xam ne daawut ànd ak wor daawut ànd ak wor mooy di laabire laabire boo xam ne intrem day nekk sa biir wala da koy nëbbal kenn loo xam ne bu ko waxoon mu jariñ ko wala leen ndax moom mu daa wax man xassana falaysa minna kon nasihun bila xissin la woon waaye alimun muhallimun la woon da nekkoon ku xam tey jàngale wax xam nga moom yonente bi nee na innama bu'istu muallima yàlla dama yónni may ab jàngalekat saqiyun bila man nin la mooy koo xam ne dafa tabe tabe goo xam ne àndut ak ak ñax maanaam naan maa la defal léeg maa la defal lii yonente bi noonu la meloon tabe gi ci wet yépp la woon tabe ci wàllu joxe alalam ak tabe ci wàllu joxe coonam ak tabe ci wàllu leerug yàlla sax daw ci ne jamono bu ne daana fexe ba nit ñi génn ci ak réer lu mu ko togg rek jaraloon na ko ko nee nañu daana joxe ba du amati lu mu joxe mu lekk joxe ko ba bi mu fiy jógee sax bor bi mu amee dafa am ku ko doon laaj fekk amul lu mu ko jox mu tayli mbubbum jàmbur jox ko ko loolu moo waraloon ñu ne yonente bi ñu fi jógee am na ku mu amee loon bor bor ba loolu la woon kalaaman yu layyinu mooy du wax kenn wax ju dëgër anas ibnu malik dafa nett ne nekk na maa yonente bi fukki at mosuma def dara mu ne ma lu tax nga def ko mosuma bàyyi dara mu ne ma lu tax defoo nangam mosuma dóor mosuma gëdd nee na léeg-léeg daanaa ŋàbb ndab wala daal mu toj sax soxnaam yi bu ñu ma bëggee gëdd man bàyyi leen ko ndab li mu yoroon dafa amub àpp boo xam ne bu jotee mu faatu ni ko nit ñi amee waaye moom du ci dara bu leen ko wax dara mu ne nag yonente bi dal luy tedd nga luy kawe luy meloy mat yaa ko boole say jikko lottal na ñëpp mooy labista siyaabal majdi wal fadli wal xula wa fiika min al axlaaqi ma ajabal kulla tàgg na koy ci njàmbaarem njàmbaare gi jéggi woon na dayo Ali ibn Abi Talib nee na bu masaan nekk ci xare bi ba xare bi metti ñun ci yonente bi dañ daan daw di làq ci moom ndax ak njàmbaarem xarib xunay ni bi jullit ñëpp dawee yonente bi dafa taxaw ci kaw ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyu laa kasib loolu ak njàmbaare la moom la ko sëñ bi tàggee laqiita min al aada ima dallana mahan ala annaka laysu lati hisbahum falla mu ne koo xam ne dafa ñëw ci yonante bi bëgg ak njub ay may yu bari dafay fekk waaye ku fa ñëw ak réer ak xamadi indi ko fa mbugal la fay tafe ci man jaa yab si min ka naylan mahal huda xata ya basirin tadfahul faqra wal mahla waaye li man xaadahu jahlun lakum za tajarrui asaabun sadidun yurisul faqra wal xasla loolu moom la boole ci benn bayit tilka yadayhi laha saayun tulaasimuhu baslun wa basun liman laan wa man jaaru mooy ñaari loxom benn bu ci ne dafa am jëf bu ñu jëf te mooy ñi yayoo yërmandeeg baax ak jokk ñooñu bu ñëwee fekk ko ci moom waaye ñi yayoo mbugalum yàlla it nag bu ñëwee fekk ko ci moom loolu moo ko daan waxal boppam ana nabiyu daxuukul xattal mooy maay reekat bi di reekat bi ñi yayoo ku leen rey da leen di rey waaye ñi yayoo ku leen rey da leen di rey ba tey nee na Muhammad mooy ki nga xam ne moo far yi kéefër ak bokkaale ci kaw suuf lépp luy melaw tedd nga ak lu sori sikkiren moo ko melawoo woon mooy ki wuyu yàlla di ki yàlla wuyu ba tey nee na mooy ki dagganal li yàlla dagganal araamal li yàlla araamal yëpp ci ay melo yoo xam ne suñ bi dana ko ci dagg la mu ne ba tey lëndamu kéefër ak bokkaale yonente bi moo ñu ko faral mu di un jalaaxan na di jaanaa mu xallilun waaye malihun wa maasumun min annaasi wal wahmi yàlla ko musal ci fatt ak jur ñaar yëpp du ko def mu ne yonente bi moo nekkoon dëkku xam-xam doonoon xéewal doonoon ku ñeme niñ ko waxe woon léegi di ko yàlla musal ci bàkkaar ak tooñ madinatu xilmin murtajan minnatun lana jariun wa munjin min sunubin wa min sulmi loolu lenn ci ay mari jikkoom yoo xam ne tagg na ko ci bokk na ci lim ko tàggee leeral ay muxjisaam yi nga xam ne lottal na ñëpp bokk na ci lam wax ne bokk na ci kiimaani yonante bi li tegtale kawet darajaam ak ne moom ab yonante la bi ko yàlla yónnee doj yi dañ ko doon nuyu garab yi dox wut si ko weer wi tamit xar ngir moom mooy minha salaamul xajari alayhi masyu sajari lawul siqaaqul xamari bisil baxaawal xidami loolu lu ci ne am na tegtal bu ko tegtale yonante bi daana wax ne am na wenn doj ci màkka woo xam ne xam naa ko njëkk yàlla bi ma yónni dama daan nuyu ba fii mu ne mën naa leen ne doj wii la ba tey nee na woon bis bi ma jibril xamalee ne yàlla ma yónni doj bu ma taseel wala garab bu ma romb ci kaw suuf rek mu ne ma assalaamu alayka ya rasulallah doxul garab gi it Ibnu Umar nettali na ne dañoo mas a nekk ci ab picc bi nag yonante bi am benn arabi yu boo xam ne dafa ñëw ci yonante bi bi mu ñëwee ba jege yonente bi yonente bi ne ko looyut foo jëm mu ne samay mbokk damay ñibbi yonente bi ne ko xanaa du ma la woo ci lu baax waa ji ne ko loolu lu mu doon mu ne ko nga yonente bi ne ko nga nangu ne yàlla rek kay yàlla mën naa yonente bi yàlla arab yi ne ko ndax am nga tegtal bu may mën a sukkandiku ba dëggal ne yow yàlla la yónni nee na yonente bi ne ko garab gi mooy sama seere mu ne ko wool mu woo garab gi nee na garab gi mi ngi woon ci wetu xur waaye ci saase garab gi dafa buddeeku deex ci suuf si ba ak fekk leen fi mu toog yonente bi ne ko seereel ne yàlla yàlla man yàlla ma mel ni garab gi wax ko ñetti yoon ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah daal di delluwaat fam nekkoon ci saase sàmm boobu daal di tuub ibnu ibnu abbas tamit nett li na lu mel noonu ne am na benn caru tàndarma bu mu toogoon ci wetam ni yonente bi ki mu woo ci yàlla nu mu wut a gëm mu ne ko ndax bu ma waxee garabu tàndarma gi mu sujjoot mu sujjoot da nga ko gëm waa ji ne ko waaw waaw ci sensé mu woo carub tàndarma bi carub tàndarma bi jógee ci kaw ba su jot ci kanam yonente bi alayhi salaatu wasalaam delluwaat fa mu nekkoon kooka doo gëm xarut weer woowu ñu tudd it mooy lahun fi xaaqul xamari bi fil baqa wal xidami ibnu mas'ud nee na jamono yonente bi weer wi dafa xar ñaari xar benn bi nekk ci tiim doj wi benn bi nekk ci suufu doj wi yonente bi wax ña fa teewoon ci ñii ay julit ak julit ay julit ne leen seere leen maanaam seere leen ne lii karaam ak yàlla la boo xam tey la ma sa am abu bakrin albaaxillaani yi nee nañu waa Room bi ko wooyee ngir def ak jongante ak ñoom loolu la leen daaneele ndax dañ ne ko yéen daal da ngeen ne weer wi dafa xaroon te ñun mënuñu koo gis ndax weer wi ak seen yonente bi dafa am ak jege ñaale gu tax mu man koo xar ngeen di ko gis te ñun mënuñu koo gis waaye ci chance mu ne leen bokk na ci karaam yi ngeen di nett li yéen nasaraan ne xiisa wàcce woon na taabal joo xam ne maanaam palaatu ñam boo xam ne ci kaw la jógoon ngeen di ko gis te yahud yi ngeen jamonoonteel gis leen ko ñu ne waaw mu ne leen ndax palaat booba ak xiisa dañoo amul jege ñaale boobu ku tax ñoom ñu man koo gis te ñu ci des mënuñu koo gis amuñu luñ ko ca tegal kon li ma bëgg a wax rek mooy insixaaqu xamar dëppoo nañ ci ne lu amoon la iqtarabati saatu wan saqal xamar moom alquran tudd na ko ba kaana yuzilluhu alxamaam yara waraa wa amaam wa aynuhu kaanat tanaam wa xalbuhu lam yanam bokk na ci muxjisa yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi sëñ bi di tudd mooy fu masaana jëm niir bi da koy keral loolu it may sara nett dina ko ci tukki bi mu àndoon ak moom dem saam mu ne fu masaana tool rek tey gis aw xiin woo xam ne mooy topp yonente bi nangu aw naaj laal ko yara wara aw amaam mooy day gis ci kanamam ak ci gannaawam ni muy gisee li nekk ci kanamam noonu lay gisee li nekk ci gannaawam loolu it yonente bi moo ko waxoon bis dañ doon julli am ñu nekk ci gannaaw mel ne dañuy fo biñ sëlmalee mu ne leen bu ngeen dee julleeti rukkoo yeeg sujjóot yi nay mat ndax ni may gisee li ci sama kanam noonu lay gisee li ci sama ginnaaw bokk na ci karaama yi ñu nekk li mooy tawas minha tawassul tuur bihi lahu staka bahir wan fajaral ma un namir min yadi si takarumi wan fajaral ma un namir moom moom itam fees na lool ci téere yi mooy lim ne yonente bi dafa am ab xare boo xam ne dañ ci doon dem de doonub xare sax ci biir Madina la ci biir marché bi am na fu ñu wax sowra fa la yonente bi alayhi salatu wasalaam toogoon jël tengam teg ko ci biir ndox mi nee na ci changé ñu gis baaraam yi di génne ndox ba ndox mooma ca lan jàppoo ñoom saxaaba yi bis boobee ñu laaj anas ibnu malik mi ko nett ne ko ñaata ngeen woon boobu mu ne matoon nañ ñett téeméer nga xam ne ñëpp ci ndox mi doon génn ci loxo yonente bi alayhi salatu wasalaam ci lan jàppoo bokk na ci sumiha tasbihu taham fi kaf fi afdalil anam xitaabu sabiin bi kalaam muxjisatul muxtaram tey tasbihu taham mooy ñam wi doon sàbbaal ci loxoom doonte addis bi ci ñëw am nañu ne addis bu xaw a doye di la waaye fii wit alquran seere na ko ndax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum ndegam léppe sàbbal nit ñee ko xamut kon bu soobee suñu borom mu déggal yonente bi sàbbaluk ñam woowee bët mi nga xam ne yonente bi da ko wax la woon tamit bokk na ci ay kii maanaam xitaabu zabin am na ñuy net li xitaabu zibin maanaam am nañu ne ak cil la woon am nañu ne ak kéwal la woon waaye lu ci ne rek am na wér na ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax la woon na ko kalaamu dabbin xat ata fiha bi nafsin sabata bokk na ci mu xaji sa yooyee mbëtt mi nga xam ne yonente bi da ko wax la woon loolu moom itam ab arab yi ci la xew woon arab yi bi yonente bi da ko woo ci yàlla gëmloo ko yàlla mu ne ko duma la gëm lu dul mbëtt mi muy yor dalaa gëm ci sensé yonente bi wax loo mbëtt mi mbëtt mi ne ko seere naa ne yow yaay yàlla yàlla la astaxfirullah seere naa ne yow la yàlla yónni laa bëgg a wax xaniinu jismin xat ata fi mu'jizatil mukarrami mukrami kon bokk na ci muxjisa yooyee aninu gis xin mooy dàtt bi nga xam ne moo nekkoon ci jàkkay madina yonente bi daa ci taxaw di xutba keroog biñ ko tegalee am minbar mu yéeg ca kaw minbar ba dàtt bi dafa jékki-jékki di jooy di yuuxu ba ñëpp dégg ko neenan booba jàkka ji daanaka ko ñëpp àndandoona ndax riiru dàtt ba yonente bi wàcc ba teg ko loxoom mu noppi am nañu yokk ci net li ne yonente bi da koo wax ne ko bu la neexee ma defaat la nga nekk ak tàndarma mel ni tàndarma yi ci def bu la neexee ma jëmbat la àjjana gaa yi baax ya nekk àjjana di lekk sa meññet ci changé ñu dégg yonente bi ne ko def naa ko def naa ko ñaari yoon ñu laaj yonente bi ne ko lu tànn ba nga ne ko def naa ko mu ne dafa tànn ma jëmbat ko àjjana ba tey kaana yasuuru man si la ridwaanu kay yubajji la minha tuyurun mursala ala sawi taasumi mooy ridwaan daan siyaare kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir màggal ko ridwaan nag nee nañu mooy garde àjjana bokk na ci picc yi nga xam ne suñu borom moo leen yabaloon ci kaw gaa yi jógoon ne dañuy toji kaaba la loolu yi picc yi maan yonente bi dañuy tudde ihaas la ndax at mooma ci la yonente bi ganee àdduna moom la ko suñu borom doon terale moo tax mu def loola mooy naha ilal baytil haram li kay yasira san hidaam mustadrajun min al anam lil jahli bil muassami wallahu jalla faala bi jaysihi ma faala bi jaahihi wa jaxala kaydahum fil yahami suñu borom bi abraha ne day toji kaaba ga ay picc la leen booleel yoo xam ne ay xeer lan leen doon sànni bay armé ba ñëpp ca noona lañ faatoo alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajal kaydahum fii tadlil wa arsala alayhim tayran ababil kon kiimaan googu moom lay nettali noonu bokk na ci kiimaan yi sëñ bi di nettali yonente bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi ñu génnee ne day gàddaay dem Madina dugg ci xunt mi nekk ci yoon wi yéefar yi topp ko ngir bëgg koo delloo si waat aw jargooñ la suñ boroom yabal mu def ak lënd ca bunt ba am pitax ñëw tàgg fa bi ñu agsee daal ne fii ba fi nit gëjee dugg yàgg na wàññeeku dem mooy di xan kabuutin nasajat maha xamaamin asbatat xawman biña xat fatarok fatayhi man kasilan walkaafiruuna qad ataw wa asaral maahiya qafaw wa minhu say an lam yaraw wa rajaxu bil alami wa huwa zu tafattun maha alxatiixi l akbari fi lxaari mar a nasari ma ra'u min arim mooy mar a nasar la woon ñëw nañ ba tiim ko ba Abubakar di wax yonente bi naa ko bu ne woon nii rek gis ñu waaye suñ borom def lan dugg ba tax ñu ne fii daal nit dañ na fee dugg dem seen yoon bokk na ci kiimaan yonente bi bu daan masa waajal ab xare ngelaw li moo ko daan dimbale ci ñoom mooy jiir ci ñoom def tiitaanga ci ñoom ba nga xam ne ñooña duñ ko ñëwee te xam nga miskul xasimat ni ko gars yi waxe mooy tiit saa yoo xam ne noon bi nga war a xareel xas na am tiitaanga rek daanaka moom defetam mat na loolu nag moo tax suñu borom daan yebal ngelaw li mu jiitu ko ci noonu def tiitaanga ci ñoom ba nga xam ne duñ ñemee jullit ñi bokk na ci muhajisa yonente bi muhajisatul isra mooy guddi googu nga xam ne ca la rañaane woon dem ca kaw moom la suñ bi net bi xat baata yaxrifu tibaax fi layli xaasida wifaax wala ambiyaa bi ittifaax laa xawma bi takarrumi topp na ko di net li gaa yu baax ya mooy yonente ya nga xam ne ñoom la fa fekk nañ ko teeroo nan tooxlo ci moom nan ko nangule ak njëkkante gi njëkkante ci di ko siyaare di am mbégte ci moom bi nga xamee ne kii mooy yonante bi kenn ku nekk ci ñoom bég lool ku nekk ci ñoom it xam ne sab sang ñëw na lépp nett na ko ci wabtadaru bil marhabi ba àgg ci summa li daarihim sana waxad xawaa kulla muna minhu wa ashabal xana wa jalibatin niqam loolu ba tey moom la nett li fa lilakal mujisaatul xaarixaatu allati biha atat xablu min xayril mira jumlatu rusuli laka sarhu qad saarat bi saafin bi daawatin kaman saqa badrun saahidun samma bil fadli liman anzala al aaya allati xuttani biha kitaaban asisan bayyana al xaqa bil fasli mooy rek da ko wax ne ko muxjisa yi nga xam ne yonente yi indi woon nañ ko bu njëkk lépp say muxjisa la nekk leeral tamit garab googu nga xam ne moo doxoon ñëw si moom ak weer wi nga xam ne moo xaroon ak muxjisaam gi gën a màgg nag muy alquranul karim nga xam ne moom beneen muxjisa bu man doon mën nañoo dem ba jamono weesu ko mën nañoo dem ba njabarkat sax man mën a def loola waaye nag alquran moom mooy li nga xam ne moom ba ba àddina tukki kenn mënu ko woon te kenn du ko mën suñ borom nee na leen woon indi leen lu mel ne alquran mënuñu ko mu ne leen indi leen lu tolloo fukki saar mënuñu ko mu ne indi leen benn saar mënuñu ko neen fa in lam tafaalu walan tafaalu bu ngeen ko defut te xam naa ne ba yowmal xiyaam du ngeen koy def fattaqu naar allati waqiidaha annaasu wal hijaara kon alquran mooy moo ci gën a rëy ba ci jamono bii ñu toll sax jamono bu ne xam-xam yu bees yi di gën a dëggal ne alquran mooy moo ci gën a rëy ndax loo xam ne gis nañ ko ci lu bees rek dama fekk am na ay alxuraan bu ko junjoon jundiwu leer bu yàgg yàgg kon loolu lenn la ci ay muxjisaam yoo xam ne tàgg na ko ci yun tamit ay benn benn tàgg yoo xam ne yu taqalikoo la ni ko sëñ bi ay benn benn tàgg yoo xam ne dafiy leeral nu mu kawee yonante yi ci def rek wax ne inna abal xaasimi laa yu xaasu bi basarin dallal la si na xaasu nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn du ko xiyaas ci min def ñu koy xiyaas ci mindeef ñëpp nee na dañoo réer rek moo tax ñu koy def daana wax ne la shakka anna al mustafa raisu li man li jumlatil wara ruus ñi nga xam ne nee na ñooy ñooy kilifa yi mindeef yi ñu ñu def ay kilifa nee na ñoom kooka mustafa alayhi salatu wasalaam mooy seen kilifa maanaam mboolem kilifa yi ñu daawi rek yonente bi mooy seen kilifa laysa yara ra in nasir al mujtaba fi man lahum siyadatun maatiba mu ne kenn mënta gis a gis a gis ba gis ci mel ne yonente bi alayhi salatu wasalaam bidayatul maahi nihayatul xiyaar faddalahu xalal waraasul ixtiyaar nee na gaa yu baax ne fan yemul fan dem ba fi seen daraja yam fa la yonente bi tàmbale moom jëm kaw mu wax ne ku yaakaar ne da nga tasee ku mel ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam kooka nee na yéefar la mulxid la fa man sanna annahu yulaaqi ahada yumaasilu lmuxtaara fa huwa alxada ndax misaaluhu fiima mada lam yulada wa misluhu fiima yefi lan yulada ba wax yonente bi ne ko ku yaakaar ne yow am na mbindeef moo yemal wala jinne wala malaaka kooka nee na du am mbégte mukk mukk man sanna annaka tuhaakil basara wal jinna wal malaka lan yubassara nee na yonente bi mboolem leer gu mën a doon ci sa leer la bàyyi ko loolu nag am na luñ ciy tudde alxaqiqatul muhammadiya gaa yu baax yépp daanañ ko leeral ak di ci indi ay tegtal yu war nañ sax la ci bind waaye xëy na topp day guddi waaye li mu wax ne leer gu ne ci leer gu yonente bi alayhi salaatu wasalaam la bàyyi ko rek mooy lu yor mu ne man laa yara ahmadana xayral wara fa suusa qaim xalbuhu maanu wira nee na ku jàpp ne yonente bi moo gën ci ñëpp kooku nee na ku texee bi la ku ab xolam lëndam la rahmatuna al muhdaatu faaqal basara wal jinna wal malaka daamu bassira ba tey nee na yonente bi nga xam ne yërmande la ji yàlla wàcce woon rek moo féete kaw mbindeef yi féete kaw jinne yi féete kaw malaka yi li yàlla bind lépp moo ci féete kaw ak mu ne képp koo xam ne sab jaayee ka jënd maanaam sam yaxantu mooy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam kooku nee na tonawu na texe na rabiha su tijaratin qad tajara bi hubbi saafihin adamal fajara man sanna anna al muntaxa lam yafuxi kullal wara fa huwa lam yuwaffaq nee na ku yaakaar ne yonente bi kawin mbindeef yépp nee na kooku yàlla defal ko tawfiq ba tey mu wax ne daha man bihi duha uman bihi tawassala mujab bi nuurihi allati yusaxsihu lmuhab yusaxsihu lhijab ba tey nee na képp koo xam ne day ñaan ti jaari ko ci barke bi yonante bi kawe dara jàmm dana tax ñaanam googee des na ko nangu mooy làmp bi nga xam ne moo leeral biir ak biti huwa siraajul wal muniiru zahira wa batinan wal kullu daama tahira ba tey am na beneen xas boo xam ne da koo tënk woon yawma mawlidihi yawmul isnayni fi rabihil awal maanaam mu ne bisub gàmm mooy bisub altene ci rabihul awal kon booba it lépp tàgg yonente bi la waaye ci gàttal dajaa wax ne yonente bi mooy ki gën a ragal yàlla ci nit ñi mooy ki gën a tabe ci nit ñi mooy ki gën a rafet bind ak jikko ci nit ñi mooy ki gën a kawe daraja ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla ci nit ñi mooy ki gën a mat am xel ci nit ñi mooy ki gën a yërëm jaami yàlla yépp ci kaw suuf mooy ki gën a jàmbaare ci nit ñi mooy ki gën a dëggu ci nit ñi mooy ki gën a xam yàlla ci nit ñi mooy ki gën a tedd ci doomu aadama yépp ba ne xas ba jeexe ba tey nee na li kulli min al axyaari fadlun wa rutbatun wa maa kam li abdillahi abdun la dal ali nee na tànneef yàlla yi kenn ku ci ne am nga ngëneel am nga daraja waaye ku mel ni yonente bi yàlla bi nag alayhi salaatu wasalaam amul fenn li kulli min assaadaati jaahun wa hurmatun walakinna jaahal mustafa al barri yaatali sàng bu ne nee na am na daraja am na worma waaye daraja yonente bi nag moo féete kaw ñëpp la in jaa bil ayaati rusulun taqaddamu fanaalu bika al ayaati min fi tafadduli nee na bu fekkee yonente yi ci def dañ laa jiitu woon amoon i kiimaan ak i karaama it ñoom ñëpp seen i kiimaan say kiimaan rek lañ ko jëlee ba tey bis ba nga xam ne mooy maanaam ràmmu min tuddoon léegi bokk na ci lim ko tàggee fii mooy wax ne yonente bi bu ëllëgee ba nga xam ne yonente yi ak ñëpp tële nañ ci ràmm ragal a dem ca suñ borom alayhi salaatu ragal a dem ca suñ borom hassa wa jalla moom moo cay dem bu ne kan mooy ràmmu mbindeef yi danaan ana laha ana laha man la man maa leen di ràmm mooy xawas safaaxata allati xam ha hajas si waaxu fil yawmi lazil wax du najas daana wax ne mooy day bindangoon léegi si yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima kon boo ëllëgee ba nga xam ne daal mbindeef yi wër nañ ku ne ngir yaakaar mu génne leen ci siitaanga yan nekk kenn rek ñu alayhi salaatu wasalaam nee na mooy taxaw nañ ne moom moo leen di ràmm liñ ko tàgg bari na lool lool daanaka ko xam xasida yi da nga xam ne xasida gu mu mën a doon bu jur xasida gu muy jullee ci yonente bi bu ñu tàgg yonente bi la alayhi salaatu wasalaam loolu lenn na rek loo xam ne dañ ko ci jukki waaye dañuy wax rek nam waxee woon moom ci boppam mubaalixun fii madhihi kaman damas wa mutnibun fiihi yura kaman ramas nee na lu waaye tàgg tàgg tàgg yonente bi yàgg waxu tayam ndax ngenee la ñu rëy lu ko waaye tàgg tàgg da ngay mel ne da ngaa junj rek bàyyi waaye waxoo dara ci ay ngenee la géej la boo xam ne loo ci wax rek day mel ni pusa nga jël tax tàngu ko ca bàyyi rek waaye doo ci mën a wax dara